Eh, Cheikh ak docteur Mouhamed Lo da ca tab bi ci benn audio bu cinq minutes boo xam ni dafa am mbokk mu ma ko yónnee eh, bëgg ci ay leerlu ci li nga xam ni mooy wax yamu wax ci audio boobu surtout nag eh, lu aju ci wax ji mu wax ci dugg madhabu Malik ci réew mi kaña la duggamit ci Afrique sax surtout almagribul islaami kaña la eh, mu wax ni ka ko fa dugal mooy abdurahman daaxil loola moo nekkoon sababu laajte laajte ba ma tontu woon ci leeral ni dafa juum ndax juum laa mën a wax ndax eh, xam naa ni boroom xam-xam la wax naa ko ci ojo yooyu leeral ni boroom xam-xam la lu mu bëgg xam te ñu bind ko ci arab man na ko xam waaye nag dafa juum juumte laa ko mën a tudde duma ko mën a tudde réer donte nag njuumte lu fees la ñu wutal ko ci ngant it te ngant la mooy ñàkk jot ñàkk jot ndax xam nañu ni amul jot te it nag yenn saa nit la nga jàpp jàpp ni lii la wala mokkal gu yàgg euh, zakira dafay wore war googu tax daruratan boroom xam-xam dafa war a di muraaja'a la mu jàngoon saa su ne waaye nag moom amul jot noona lañ ko ca waxe woon waxtaan wa nag dal di barasti ku rogalaat ba dem ci yeneeni détail détail yoo xam ni effectivement wax naa ci loo xam ni lépp lu wér la à cent pour cent ci intixaal mooy jël ya muy jël yëfu jàmbur di ko askane boppam loola lu wér la te bu soobee yàlla danaa tasaare yooya nga xam ni da koo jëloon ci ay yëfi jàmbur askane ko boppam danaa ko tasaare ndax yépp ngeeg man ca bu jëkk ba nga xam ni yëfi jàmbur yamu jëloon eh, da ko da ko dafa daf daf ko jëlaale woon ak muqaddimaam ginnaaw gi ba ma ko tanbiixee ay nit ñu wax ko ko ci la dindi muqaddima ba eh, loola yëpp dinañ ci waaye alhamdulilah usul ya mu ngeeg man la mu njëkkoon def ci sitam yépp ngeeg man Euh, ñaareel ba ñu leeral la nga xam ni mooy jëflanteem ak Google jëflanteem ak Google mooy di ci jël ay fatwa yoo xam ne dañ ko laaj ay laaj yu ñu koy laaj mu cay jële ci Google directement yenn saa yi mu yett ci tuuti euh, ta taadilaat ko jekk-jekkal ko askane ko boppam loolu it bari na lool ma ne woon fatwaam yii euh, nga gis mu bind ci fatawa fadilatu al sheikh al al docteur Mouhamad Ahmad Lo fatwa yoyu it la ci ëpp da ko intixaal yëfi jambour la yu mu jële ci al sheikh google comme ni mako waxe won donte sax deg na ñu bari ne manit it mako tontu kéro ci sheikh google la ko jele euh waye pour wone différence bi am awalan sax jele wu mako ci sheikh google Euh, maalumaat la yu yu yàgg ma ma wi noon ko euh, ndax sama baxs euh, ca laa ko ca laa ko defoon def naa ci baxs ci mazhab Malik alhamdulilah yaata yaatul yaatal naa ci lool waaye jamono yooyu nga xam ni maa ngi wax wax yooya xooluma Google ca maktaba chamila laa ko doon xoolee donte manees na ne it moo Google sore wuñu lool waaye nag jàpp naa ni sore nañ ndax maktaba chamila ay téere la yoo xam ne dañ ko dajale ba mu mat ay junni junni def ko ci benn maktaba électronique ak jël ca ak jël ca Google du benn donte nag danaay jël ci Google nag danaay jël ci Google surtout lu aju ci taarix ak yu bare bare bari ci ay téere yu ma fay jële loola am na danaay faral di jël ci Google waaye du ma jële fatwa ci Google du ma jële fatwa ci Google te moom dafa jële ay fatwa yu bare bare bari ci Cheikh Google comme ni ma ko waxee man la ma jël ca Google ndéem damaa jël ca Google taarix la taarix la loo xam ni laa yakaadu yaxtalifu fii hisnaan ay mudawanaat taarix ya la euh, ndéem dam da la ñu jàpp ne foofa laa jëlee euh, te jëlewuma fa fa ma jële mooy ci maktaba shamila te danaa leen wan fa nga xam ni fa la nekk ci maktaba shamila lii ci muqaddima rek la ñu toll euh, moom nag day jël ci Google di ko askane boppam defaraat ko jekk-jekkalaat ko di ko askane boppam wuute nag moom yàgg na fii ci jamonoy saxaaba yi la wuute daan am même ci jamono yonent bi daan nañu wuute ci ay masail kii wax lii kii wax lii yenn saa yi yàlla àddu ca wàcc ci alxuraan ànd ak benn parti bi comme muwafaqaati omar yi na ngeen ko xame waaye nag insaaf ak maandu ci wuute daa bariwul ku nekk ngi woote insaaf waaye insaaf lu néew la ci muxtalifuun yi ñu néew lu néew la ci muxtalifuun yi eh, taasub moo gën a ci eh, ixtilaafaat yi moom dëgg-dëgg du jikkoy boroom xam-xam jikkoy juhalaa yi la eh, jikkoy ñi néew xam-xam la te aadala la it nag ci sama gaañi aada la ak taasub ndax gis ngeen jamono yi ñëpp a ngi wax gëj naa dégg lu am riir ci masala ilmiya eh, mu am riir mu tolloog masala mi te man nag damaa damaa tawat comme ni ma koy waxee fan yëpp eh, ba may wax loola booba maa ngi tëdd tey laa xaw a sawar sax yàlla seere na ni tey rek maa ngi jóge hôpital waaye ba may wax loola maa ngi tëdd bañ ma laajee ma xam ni lii am na fu ma ko gisoon fu ma ko dencoon eh, ma xam ni sama baxs la ma ca bindoon xaw na maa sori ma yootu sama ordinateur jël date yooyu mu nekk noona mu nekkee ci sama ordinateur te dinaa ko diviser incha allah ca na mu nekk ci maktaba shamila jàpp ngeen ni eh, ca Google laay jëlee na am man naa caa jëleel masala yu mel nii ndax lii lay sa masala moo xam ni ci day dellu ci fatwa wala ci fiq laaj mbir la mu aju ci taarix te nag amut fenn foo xam ni taarix manees na ko faa jële fu gën a yaatu Google loola moom nañ ko na ko ñëpp xam ne ko ñëpp xam man masala taarix ya laa jële ci Google ndéem jële naa ci Google الحمد لله في مكتبة شاملة لا جل لولو سيرت نك فيرسيون بو مجي بي الشامله الذهبيه انصاف كوم نيما كو واخه باري وول تعسف في الخلافات تشو لي بارينا تشو لي تخ مو باري تي مساله مي موي دانيو لال كو خامني جاب ناني ني مقدس لا معصوم لا كين وارو كو لال نياريل بي مان تي سما بوب مان ما ديرانجي داماي ديرانجي مان داما لين دي ديرانجي لو باري باري باري تخنا مالين دي ديرانجي Euh, comme ni leen xaadim bu so di déranger mais ndax lan ndax euh, fa ñu jànge la benn jàpp nañ ku fa jànge rek boo fa jógee da nga war a nekk euh, seen al toppe da nga war a nekk di fas la ñuy fas gëm lañu ñu gëm nekk ca la ñu nekk loola lañu jàpp wala boo loolu nekkul it nga ne cell bañ leen bañ a dal ci seen kaw man dunduma loolu man xor laa gor laa amul dara lu ma tënk amul dara dara dara dara dara lu ma tënk la ma tënk rek mooy sama pas-pas te damay sant yàlla loo ma fekk ma nekk ca rek loola laa fas te loola mooy sama gëm-gëm kon ñu ñu xamee ko noonu gaa ñi nag aadatuhum mooy al al alfujuuru fi lxusum te alfujuuru fi lxusum ak caay-caay ci jamono yu xulóor dàgg sante te yent saa sallam waxoon na ni loolu jikkoy naafeq la comme man dama leen di déranger Eh, eh, loola tax na bi coow li jógee dëgg la eh, xaw nañoo wax tuuti ci ci ci lubbu mawdu bi ci li débat bi waaye la ëpp ci sama jëmm ji la ñu doon wax jëmm ji du maasum wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaaratun bisu melu ma ni saaxibu maxataat fi xayaati yatim xam ni mundu an wulida ba tey lépp dafa positif ci moom am naa ay négatif amaana am naa ay jaar-jaar am naa ay jaar-jaar buñ ma waxaloon sama tux cigarette ndax daan naa ko tux effectivement euh, ba 88 laa bàyyi tuxum cigarette yooya jaar-jaar la yu ma mën a fàttaliku jaar naa ci yëfi xale yu bari nag jaar naa ci yëfi xale yu bare bare bari euh, loola jaar naa ci duma yu bari yoo xam ne amaana lii lay sama naasib ci mako fi wax waye dama ci joxe ben misal rek wa ma ubari nafsi inna nafsa la amaratun bisu kon waron nañu tarkis ci débat bi waye dugg ci ay détails yo xamni dafa génn ci débat bi ngir taanu sama jëm ji yooyu amul solo te dana ci tontu ci mujjantalu leralat yi nga xamni dina ko leral insha allah pour wane ni loolu yëpp dara du dara ludul fujuruhum fil khusum fujuruhum wal fujuru fil khusumi ayatun min ayatil munafiq ak caay-caay xaste ci jamonoy yi xuloo surtout nga génn débat bi ñëw orcisé di wax ci jëmmi ka ngay débaal loolu xaydatun moom lañ tudde fii munawara ne xayda la ñaareel bi fu fujurun fil xusuum loolu du débat bi waaye du tee danaa ci ñëw ngir leeral ni ñii seenu caay-caay yegg na ci ittihaam nit bu fekkee ni mu xaalif nga ba may nekk ci ñoom kenn gënumaa baax ba nga xam ni maa ngi jàngale ci ñoom donte ba may jàngale ci ñoom sax nag duma duma duma duma ñoom bokkuma ak ñoom ala kulli xaal ndax euh, danaa ci joxe misaal ci cheikhu naa fay daan daan ndax moo ma jàngal informatique en 83 en 2003 te docteur mohamad loo moo ma ak mom. pour mu jàngal ma informatique booba fekk na gëj naa gisee ak docteur mohamad lu yàgg ma laaj ko dama bëgg jàng informatique arabe mu yebal ma ci cheikh naa fay moom moo ma Euh, euh, mu jàngal ma informatique ci jamono yooyu ma koy jàng euh, dem na ba dëgg-dëgg ñu miinante mu doon sama rakk ju ju ju baax ndeysaan ñu lu bare bare bari jóge na ñëw na Casamance ma fa lu bare bare bari ñu am yu bari yu ñu séq yu ñu séq ba tey nag diggante bi alhamdulilah mu ngi rafet dan na ma laaj jamono yooyu 2003 Dan nañu waxtaan ba bu ñu man muridi salafi murit laa salafi laa boo ko dana la wax loolu bari woon naa li may wax loolu kon même ba may nekk ak ñoom dëgg la dënn bu yaatu moo tax sama jëflanteeg moom it ma comprendre amaana fa ñuy teg la ñu wax moo tax ma mën di jëflanteeg ñoom waaye comme ni ma leen ko waxee rek aadatuhum alfujuru fi wal iftira wa lxusum والافتراء واتهام واتهام المخالف وربما يصلون الى تكفيره ورميه بالعظائم lu ne lu ne لوري ko ko waxal yenn saay sax danañ yàgg ci def ko yéefar def ko mubtadi lu rëy lu ne ci sofaan danañ ko ko tuumaan loolu seen jikko la moo tax dérangé wu ci ñoom danañ ca ñëw ci mujjantalu waxtaan wi incha allah am naa lu jëm ci njuum tey docteur Mouhamed Lo moom njuumte ya nga xam ni moom laa doon moo waral coow lii yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp njuumte yooyu ak intixaalaat ilmiyaam ak sariqaat ilmiya yi mu def askane boppam lu mu moomul askane ay boroom xam-xam loo xam ne waxuñu ko dafa feeñ sax nag ci lii mu askane muqri ca nafxu tib ne muqri muqri moo wax ne abdourahman daaxil moo dugal madhab malik ca maghrib loolu danañ ci ñëw ndax nag abdourahman daaxil il faut ñu xam ni sax moom moomu ba muy dugg maghrib booba doonul buur ab daw làqu la fa woon ba muy dugg maghrib ab daw làqoo làqatoo ko fa indi woon booba waa dawla al abbasiya ñu ngi wër banu umayya di leen di leen di leen faagaagal moom muy làqatu juróomi at mu nekk ci daw làqu ba ba ba yolleeku ba fexe ba dugg Maroc booba du woon lu tus ab daw làqu la fa woon fa la jóge nag dugg Andalus mbokki umawi yuun ya mu fa fekkoon fal taffu xawlahu ñu dar ko nekk di def seen pexe di def seen i pexe ba am doole dal di songa ña ñu fa fekkoon umaraaw yi ba mu ji mu yilif Andalus noona la demee waaye Maroc moom te moom ku déglu wax ja dinañ ci ñëw ci kanam dafane mo duguma dugg Maroc doon buur ànd ak dooleem ak i dagam borom xam-xamam yo xamni ay malik lolou yep dara wéru ci lépp dara du ci deug wérul donte dañ koy jàppe ni njumte la ak gëj a mu raajaa masala yi ta masala bi nak nañu xamni dafa aju ci mazhab malik te ñoom ñooñu ñep ma ngi leen di défier ma leen gëna xam mazhab malik fofu sax ma leen ko gëna xam taarixan wa madarisan wa kutuban ñoom ñep ma leen ko gëna xam amul muy dalé ko ci mom docteur mohammed Lo Euh, sama sëriñ la nag doomar Diallo nee na naay wax ni sama sëriñ la ndax jàngal na ma effectivement jàngal na ma sama sëriñ la jàngal na ma sullamul munawraq sama sëriñ la jàngal na ma sullamul munawraq maa dem ci moom fekk ma tàmbali woon sullamul munawraq ci Cheikh Abdoul si Sy ña ma nekk ndaloon Mauritanie ñëpp al oustaz imam Hassan Seck xam na loolu oustaz Abdou Abdoulahi Lam xamoon na ni maa ngi doon jàng ci moom euh, ku mel nii Eh, demba top xamoon nako. al mufattish uthman ba xamoon nako ñooñu ma fa nekkaloon ñepp xamoon nañ ni dama doon jàng ci moom ci moom laa jànge woon sulamul munawrat ba buntu bu mujj ba des ca eh, ma ma jóge fa ñibbi si ginnaaw gi ma dem saudia ba dem ci moom ne ko dama bëgg ba xam jàng man nga ko jàngale mu ne waa mu ne ko dama ko bëgg a mu ne ma baax nga indi nga indi ko eh, docteur Modou Ablaye Sall ak docteur Iliman Ndiaye ma wax leen ko ñu ànd nusxa bi ma yoroon lañu ñu photocopie ñoom matn bi kese la euh, bu ànd ak ay xaasiya xaasiya bi bu xooy si ni ñu photocopie ko yóbbu ko ñoom ñu ne dañ koo bëgg a jàng ñoom it ñu tàmbaliwaat ko ca njëlbéen ga moom mu fekk mu yoroon ci ñaari charx charxu Damanhuri ak charxul muallif nafsihi mu jox ñu charxa boo yooyañ moo gën a yaatu ñu photocopie ko it ñu ko doon jànge ci téeréem booba ñu tambali waat ko mu jangal ñuko i'tisam tamit ñom ño sak won ci mom mu jangal len mu jangal ñuko ñu tambalen ndoko ak man ma tàmbaleen doo ak ñoom waaye soriwuma soriwuma ci ma taxaw ñom sax mu jëwuñ ko yeggale maqamatul hariri jangé nañ ko ñom ca ñom darse bu ñëk ba fekké na ko waaye yittéluma won yittéluma won ndax xamna ni gënuma ko man ndax maqaam alhamdulillah ba ma koy jàng dama ko doon mokkal booba mokkaloon naa ci fukki maqaama ak juróom benn siare yaag nasru ya dellu ba ma demee ba mokkal gi sonal ma ma tànn yi rek ca la des di ko mokkal ba ñeen fukki maqaama ak juróom ñoom ñu wéy di jàng ci moom maqaama jeexal nañ ko wala jeexaluñu ko xaw ko kon docteur muhammad loo sama sëriñ la ndax jàngal na ma sama njàng ak moom nag foofa la yem amut leneen lu ca dolleeku kon Omar ba Omar Diallo incha allah sunu sëriñ la sunu sëriñ la kon fu ma koy tuddee dinaa tudd sama sëriñ ak docteur Ahmad Mouhamad Ahmad Lo kon leeral gama leeral ay asariqaatihi al ilmiya loola dëgg-dëgg dafa leen a yëngal ñoom ñëpp te loola damay persister ci ni lu wér la te dinaa ci indi ay firnde sariqaatam yooyu danaa ko publier asl fa mu sàcce ak fa nga xam ni foofa la foofa la aslu fo li nga xam ni mooy ay nasam kon yi xaqiqa la yoo xam ni ab mukaabir rek a koy weddi goo xam ni yu jaadilu anhu bil baatil yu jaadilu anhu bil baatil ñooñu rek ñooy weddi lii nga xam ni moom laa tëral moom laa yeete ci ay intixaalaatam ci yu bari nag du tee nag incha allah danaa dellu wala dellu naa sax ci sitam mboolem lu fa nekk ca ay maqaalaat ak i muhaadaraat ak i ay xutab lépp jël naa ko euh, dugal naa ko sama ordinateur euh, incha allah bu ca nekk danaa ko topp benn par benn mu qaabala koog ay mazin naatam fañ ko fooge ndax euh, ku ñu ku sàcc benn yoon ñaari yoon ñetti yoon manees naa njortu ni loo def rek da nga koo jël feneen lii nag li tax coow li bari wax nañ ko ndax ñoom dañu jàpp ni Eh, cheikhuna docteur Mouhamed Lo muqaddas huwa muqaddasun ladayhim ndax taqdis nit ki mooy nga jàpp ni laa yuxti wala yutasawaru fi xaqihi lxata ña am insaaf tuuti ci ñoom mooy ña nga xam ni bu ñu gisee mu tàbbi ci loo xam ni yellut wala wuute naag manhaj ba mu leen jàngaloon ñu weddi ko génn ci mbooloom critiqué ko taxaw fële eh, na na na Euh, rabi yu ni wala madaaxila yi defoon ak moom cay jamono ñoom congaan ñooñu euh, nañu defoon ak ñoom ak moom xam ni ñu bari ci ñoom euh, ci mbir mi dañu nekkoon ak moom ci menn mën xëj waaye amaana tagg gi mu tagg sëñ saaliw ak yu rafet ya mu waxoon ak moom ya mu waxoon ci moom ba mu génnee àdduna yooya tax na ñoom it fa xaraju alayhi kama xaraja xawaariju ala ali ibn abi talib jamono yi tamit dégg ngeen ojo yi ñëw ci bi mu waxee ni Cheikh Ahmad Bamba ci sunna la nekk ña nga xam ni ñoo ëpp insaaf ci ñoom gëna a maandu ci ñoom ñooñu ñoo ko doon critiqué ba am na ci ñoo xam ni génn nañ e, ca loola mu nekk moom ber seen mbiri bopp ndax jàpp nañ ni moom it mubtadi la wa hakada al qawmu boo xoolee rabi al madaxila ñoom it daa iman e, bari na ñoo xam ni inshaqu anhum ber seen yëfi bopp loolu bari na ci kon e, ñoom taqdis giñ koy taqdis loolu moo waral bu ñu mën a muñ mukk kenn di dal ci kawam waaw euh, comme moom it euh, munta munta nanguwul critique nanguwul ko ko critiquer aslan nanguwul ko ko critiquer ndax sama problème ak moom dëgg-dëgg la ko waral mooy mooy mooy euh, woolu ma ca gannaaw ba ma defee émission ci al bida al xasana fekk ko kulliya ci anami woote bu xaw a yéeme sax mu bëgg a def rek loolu la ñu tàmmoon daan ko gis jaamiyal islamiya mooy iqaamatul xujja la bëggoon def ci man bëgg ma humilier ma jiitu ko ca ma jiitu ko ca mu mer génn génn saal ba ndax nanguwul critique te dama ko critiqué keroog ñu bari fekke nañu ko kon lii muqaddima la ci wane ni sunu problème ak ñoom dëgg-dëgg la ko waral du dara lu dut dañu am dégg-dégg ca nusuus ya ñu nit ñu am dégg-dégg ca nusuus ya ñeneen am dégg-dégg ca nusuus ya mag ña mooy sunuy mag yi danañu ñëw sax ci la mu tudd mag ña ci ojoom bi jàpp ni am na yeneen mag yu jiitu sunu mag yi na am am na ay mag yu leen jiitu waaye est-ce que mën naa tudd kenn ci mag ñooñu moom kenn mënta tudd ci Sénégal benn turu boroom xam-xam bu jiitu xaali Amar Fall na am ay boroom xam-xam yu fi woon waaye ñan lañ kenn xamu leen xamoo leen ba pare bëgg xam seen mën hajum njàng loolu nan la mën a nekkee xamoo leen bëgg xam ca la ñu nekkoon kayf loolu nan la mën a nekkee ñu ngi taxat ñu ngi leen di taxat di ñoom ñëpp dale ko ci moom moomu cheikhuna docteur Mouhamad Lo Omar Diallo nee na naa koy wax sama sëriñ ndax sama sëriñ la effectivement cheikhuna docteur Mouhamad Lo moomu li ci li mënuñu tuddal kenn ci boroom xam-xami Sénégal ku jiitu xaali Amar Fall mustahil mënta nekk kon bu nee waxul mag ñi yan may mag lay wax ak mag ñooñu ñu ñu tuddoon fan lañu ñu dëkkoon ana lañu ñu bindoon lan moo nekkoon seen man haj wa ñu doon dund ana yooya xamu ko xamuñu ko keneen xamu ko amul kenn ku ko xam bay mën a xam man haj bañ doon dund ba xam kañ lañu ñu doonoon ay mutasawifu wala doonuñu ko yooyu yëpp incha allah danañ ci ñëw bi tafsil kon dañu jàpp ni moom maasuum la jàpp ni moom muqaddas la te mooy tere taqdisu shaxs loola tax na Eh, ku laal Mouhamad loo rek laal nga laalaate waaye nag eh, dinañ leen wax ni lii début la début combat bi la te incha allah eh, ñu ci dellu ginnaaw benn yoon danañ ci dem ba jeex ci takk takk takk te it nag di wax ni li jëm ci sama jëmm ji tey ci enregistrement bi bu soobee yàlla danaa ci tontu ci seen tuuma yooya waaye bu weesoo tey moom lu ñu waxati ci jëmm ji duma ci waxati incha allah ndax ñoom wir na ni. قوم فجار أو خوم في الخصوم فجرة فجرة عند الخصوم والفجور عند الخصوم علامة من علامات النفاق كم نكون صلى الله عليه وسلم وخير كون آه، نيجي آه، جيم ان شاء الله تي تفصيل اك ليرال ييغا خامني مو وارال تيوي تي سما ديغنتي تي اوديو بوبو نيغا خامني دنجكو انريس دنجي دا ما ام كوما دون وخال yàlla def audio ba tas tas ga it naqariw ma ala kulli xaal euh, naqariw ma benn yoon euh, kon bu soobee suñu borom dinañ ci jëm euh, ci détail yooyu incha allah jërë ngeen jëf